ñëw nag seet ko dalal ko jàmm ñaanal ko yàlla te dañu ko lëri suñu diggante ak moom fii suñu kër la suñu kër mag la di sëñ Moustapha Bachir waaye di suñu kër maam Serigne Touba ñëw itam ndokkeel ko ci inauguration bi mu fas yéene def tabarakallahu ñu di ko rafetlu di ci rafetlu itam fente njaboot yi ak seen taxawaay di leen ci ñaanal yàlla tabarakallahu mottali yéen yëpp ci biir ak ci biti bég nañu ci bu baax a baax a baax kër gi barakallah miin nañ ko